ma sant yàlla julli si yonent bi maa nga leen di surtout maa waa Medina Fall aw ma seen fay ñëpp xale ya mag ñëpp aw seen fay parce que lii yëpp ñoom la fu ma war a jotee wala fu ma war a taxaw rek ñoom ñoom la ñoo ñoo ñoo waral lii yëpp man nag li ma waxoon rek laay wax man Macky Sall laay waxal moom ngir yàlla mu jàpp si rek te yàlla tax parce que sama doom xale la mu xool avenir xale lan lay jëriñ ëllëg mu seet yàlla rek si yàlla mu bàyyi ko mu libéré loolu nag bu ko defee suñu suñu dëkkandoo ak ñëpp maa ngi leen sant koo xam ne rek xalaat nga ni rek sama xel rek boole naa la si loolu daal mooy sama métit xale yi mënu ma leen fay mag ñi mënu leen a fay parce que lii yëpp ñoom la ñoom sama li ma def yëpp ñoom ñu koy def loolu moo tax amatuma si dara lu diis si man lépp dafa oyof ndax ñoom Ousseynou Diop la tudd mu ngi juddoo Medina Fall yaayam Aminata Sall papa Modou Adama Diop mas ta génn Thiès mais mësta génn mit na faal mit na faal fi la amee léppam fi la jàng primaire fi la jàng CM bi ba dem lycée lépp fi la ko amee moom mit na faal am bag moo tax mu génn dem université première année mësta jël sax deuxième mère élèves yi daan nekk si mit na faal si la bokk moom loolu moom loolu kooku mooy Ousseynou Diop fépp fu ñu war a dem rek dem nañ si am na ministre yoo xam ne sa dem nañ si ñoom foo xalaat ni war nañ faa dem rek dem nañ fa fépp foo rek wala fu ñu di xalaat dem nañ fa rek dem nañ taxaw nañ foofu waye ba léegi gisuñu benn bunt gisuñu benn renseignement ah man damay dem diko setti man toujours damay dem chaque mercredi wala par 15 jours jot ma dem setti ko dedet nee mom moom fi mu nekk alhamdulilah rek la bëgg tu sañoon mom toujours mu ngi génn dem continuer njàngam mom lol lamay wax su ma man kay Marème fay toujours ma ngi koy bëgg gis bis bu ne lol lay wax mais bu déggé sama kàddu sama xam man amida Sall ma ngi wër Marème fay pour numako gisé man ba to waxtaan ko ak man ak sama doom lol rek mom la bëgg man bu ma ko gisee jàkkaarloo face à face ma wax ko kan mooy sama doom mu wax man ma wax ko kan man maay kan comme bu boobaa dina xam lan la loolu rek laa bëgg man. je peux dire encore une fois c'est le collectif Ousseynou pour la libération de Ousseynou Diop donc Ousseynou Diop dina may ko ça fait presque quatre ans que Ousseynou est incarcéré en prison on a mené tous les combats de monde pour la libération de Ousseynou mais toujours en vain. Nous, on ne demande pas la clémence de Ousseynou. Je le dis et je le redis encore nous demandons le procès de Océanou. Parce encore une fois, Océanou n'a rien fait. Je l'ai dit, lors de notre dernière conférence de presse voilà, que il faisait partie des meilleurs élèves de son établissement, je peux dire. Il faisait partie, euh, par exemple, de CI jusqu'à terminal. Océanou était toujours le premier de sa classe. Il a décroché son bac avec mention quand il était à l'université, dans son fac science, il était presque plus de 400 élèves. Il faisait partie des de, 2000 élèves. Il devrait même aller en France, continuer ses études là-bas. Il a écrit le président de la République pour, demander, pour lui demander du clémence. Le premier ministre, le ministre de la Justice. Mais jusqu'à l'heure que je vous parle, rien. Vous voyez, maintenant, on a une habitante euh, presque de 40 presque de 50 000 habitants. Mais est-ce que vous voyez 100 personnes ici derrière nous Parce que euh, la population, je ne sais pas quel mot que je peux utiliser pour leur adresser que notre fils est en prison. Il est temps qu'on parle de Il est temps qu'on libère Océanou. S'il le, faut, je l'ai dit tout à l'heure qu'on ne demande pas son procès. Qu'on ne demande, euh, demande pas de clémence parce qu'il n'a pas encore jugé. Mais nous demandons qu'on lui dise une bonne fois pour toutes. Effectivement, mais on avait saisi des avocats et leur donné le dossier de Océanou. Mais jusqu'à présent, rien n'est avancé. On a encore pris un autre cabinet, euh, le cabinet de, Pape Djalikan. Mais jusqu'à présent, encore, rien n'est encore avancé. Mais qu'est-ce qu'on attend de faire un procès pour Océanou Bon, moi, je lance un appel une fois, encore une fois de plus. Je euh, de que ñu bàyyi aussi. ñun ñaanu ñu nañ ko bàyyi de parce que Ousseynou jugé guñ ko mais dañu wax ni nañ ko parce que il est temps dama ne Ousseynou Benin, DOM, bu ko beaucoup bu DOM Sénégal d'un côté. ko parce que il faisait partie de ses meilleurs des meilleurs élèves de son établissement Nous sëyi ba terminal moi mooy jël premier dagg agmation, ak mention dem université cat top ko mu ni dafa def benn commentaire ak Charles Hebdo moo ñu ko pourtant li DOM def France def na lu toll ni noonu te kenn téye ko lu dul 6 mois en France beneen bi ci topp ñun ñu dëkkandoo ak moom mën nañu def ci moom ay seede yu bari yu dul jeex man je ne parle pas de sa famille mais je connais l'homme Ousseynou ah booba tey nga jël ko téye ko nii en prison naan dafa def apologie terrorisme ñun ñaanuñu de nañ ko jugé et puis Mahomet sur le Saint Coran bu ñu ko jugé woon tey bu subaa dinañ ko bàyyi ñun nag suñu combat du arrêté on va continuer le combat jusqu'à la dernière goutte de notre sang ah vraiment encore une fois tamit damay wax ni population bi dafal

mel ni li ñuy def dëgg la te boo ci jógee di ci wax sax ay ñeneen ni la wax ne la noo dafa ndànk xamoo lu nekk suuf dossier bi ñun de damay wax ak le collectif bi nga xamante ni ñoo ko àndal ak les étudiants muy suñu yaay yi nga xamante ñoo nekk ci koñ bi dañuy continuer combat bi incha allah mercredi prochain muy profiter ci occasion bi joxaat ñëpp rendez-vous bi pas place de France lañ jëm suñ doon ñett nit sax dinañ fa toog wax li ñu en tout cas li ñuy demander encore une fois bi nañ ko na te nag xam nga am loo xam waxuma ko ci français dañoo nekk ci temps parrainage bis bu nekk nga gis ku yoru kayitam dugg ci kër gu nekk naa la damaa bëgg ngeen parrainé ma ko damay ñaan doomu Medina Fall laa man je ne parle pas d' autre quartier doomu Medina Fall yi seen fiche de parrainage nañ ko téye parce que man je parle qu'au pouvoir et l' parce que ñun ñëpp ñoo bokk xale bi Ousseynou mën nañu jariñ tey mën nañu jëriñ ëllëg mën na jëriñ réew mi leneen lu dul lii ëllëg seen fiche de parrainage nañ ko téye wala bàyyi ko bu kenn jox kenn lenn je vous remercie